waaw ah, koo xamante ne bi nii kenn la ci ñun kenn la ci ëttub Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni li at yi di néew néew néew jëf gi néewul ndax baatu laa la illallah moom bu dëggoo dañ ne fa pay diwaan lay yëngu te gis na ni xëyam ak gontoom lépp ci sikkur laa la waaw ah, mu nekk koo xamante ne bi nii wax dëgg yàlla du ku ñuy soññ ba bëccëg ndax dafa nekk ci yoon wi waaw ah, gannaaw ba mu feeñee ci ay way juram mu jàng nekk fi mu war a nekk ba yàlla boole kook Cheikh Ahmadou noo Mbacké Noreyni ñun ñuy jëwriñam ci kër gi ñu gis aw doxalinam rafet ak mbokku taalibe yi mu am yar am teggin macha allah tamit baat bi neex yàlla na gën a neex yàlla na ko cat sori yaram ak tegginam daal lan ko jàppee waaw ndax liñ naan yar moom lu mu la mayul du la ko xañ te gis nañ ni muy naf nafee ci sëriñ bi guddeeg bëccëg léppam sëriñ bi la ñëpp la jox cër moo tax bi ñu ñu am mbégte ak ak ak ak yàkkamti teew fi déglu ko ak euh, indil ko suñu soutien ak suñu soññ ndax macha allah gis nañ ni maanaam du ma ne xale yi sax ñëpp ku ñoo koy béggee rawatina tout tànk yu ndaw yi ndax am na yu fi jaar jaaraat fi te xale yi ñëpp a ko mokkal kon nag lii bu ñëwaatee tey am na mu mel kon dañ ciy ñaan tawféex ba mu faw xëy ya fi jaaroon yëpp yëpp yëpp te sunu borom mën na ko te ku tedd ki àttan na ko. waaw macha allah dafa nekk tu tànk boo xam ne yàgg nañ koy bàyyi xel ci Zikrullah bi ndax xëy na euh, modestie à part am na lu sëriñ bi may ci Zikrullah oreille musicale am nañ ko cant guñ taxaw bu nit waxuma nit ku dëbbe nit ku aw sax dinañ xam baatam fa muy waaye ak ndax baatam neex na ñu koy yàgg bàyyi xel moom nag xam naa dina dellu si ci ni mu teewee ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaye nag nekkuloon koo xam ne dafa féetër déedéet dafa nekkoon koo xamante ne dafa yàgg topp diine ji jàng alxuraan ba wàccee kaamil jaar fi mu war a jaar di gëstu xaside Serigne Touba yi di gëstu mbindum mag ñu baax ñi ba nag maanaam xolam orienté wu ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nit kenn du la jàpp sa loxo di la forcer naan kaay jébbalu ci diw déedéet dafa am loo xam ne yëg-yëg la dafa am loo xam ne bind nañ ko ca xalamul arwa démb tey doog a ñëw li euh, li kulli shay'in ajal rek nag moo fi nekk maanaam chaque chose en son temps bu waxtu wa jotee rek kala sunu borom booleel par force nga nekk ci keppaaram par force nga mujj ci keppaaram mu yàgg naf na fi ci Cheikh Ahmadou Kara moom it kenn néewu ko nan dem sëñ ma doon sa jëwriñ wala nangam ak nangam moom moo toog maanaam ba xolam ak xelam sama jëmm ju xeebu ji doy ko ngir mu ànd ak man ñu ànd liggéeyal Cheikh Ahmadou Kara ndax damay koy wax aw may taalibe du ma du ma seen sëriñ seen jëwriñ laa ci ëttub Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndax man jam jaamaatu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni laa kon du ma fi toog naan diw sama taalibe la diw sama taalibe waaye nangu gim nangu ànd ak man topp sama ginnaaw ñu ànd liggéeyal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ah ku ci mel ni moom bu ma tàllalee loxo dama koy xëcc taf ko sama wet ndax lim nekk duma ma sonal ci dara waaw ah, te bu ma doon sonal ci dara sax dama koy accepter ndax sëriñ bi dafay jël ñoo xamante ne bi dañ ne société bi da leen a mu defar leen bañ mën a dellu ci biir société bi mu delloo leen seen ndey ki bàyyi jariñ société bi kon nag moom bu ñëwee mën naa ne maanaam du du du yàq ci mbir mi dara day ñëw rek mu doon continuité ñu ànd liggéeyal sëriñ bi rawatina mu fekk ma ci domaine boo xam ni tamit sëriñ bi daf ñu ciy liggéeyloo muy zikur la kon ànd boobu day day day day neex daal ànd boobu day neex. waaw bu ma juumulee damaa demoon euh, ay cant euh, bu ma juumulee du du bambiloor sàngalkaam laa demoon ay cant may sikar ba ci dégg bi ba ci digg bi di dégg kuy kuy kuy kuy kuy cerse maanaam kuy aw te boobu maa ngi wane ginnaaw waaye bi ma déggee voix bi aw def benn ondulation rek damaa tourné ndax ma noonu laa mel ci zikur la waaw même ñi nga xam ne ci yeneen tarixa lañ nekk rek am na ci yenn façon daaj yoo xam ne boo ko defee rek waaw daf may def ay chair de poule damay frissonné daal ndax noonu laay dundee zikur la ak ay air boobu maa ngi wane ginnaaw maa ngi sikkar waaye moom bi mu awoo ba cersi ci micro bi rek damaa gestu rek xool ko rek ci samam xel nag ndax zikur dafa laaj concentration waaye samam xel traversé na vite fait ma ni hey tout tànk bi macha allah bu góorgóorloo moom kenn du ko dàq sikkar jur boobu laa ko njëkk a dégg mu mu mu mu aw yeneen yi ci des tamit ba Cheikh Ahmadou Kara ñëwaatee Bambilor maanaam déggaat naa ko tamit waaw yeneen yi tamit cant yi ndax macha allah li ñuy nekk ci cant yi dafa bari ndax ñoom la ñu sëriñ bi booleel tout tànk yi ñuy fekkanteek ñoom ci cant yi fépp fu cant nekk rek bu nekkul ci ndigalu sëriñ bi rek dañ fay dem ndax ñoom li ñuy dund ci sëriñ bi kon ñuy gis suñu jëm yu xeebu yi da ciy baax ngir ñu leen di dolli moral di leen dolli force moo tax cant yu ma dem rek bu fa nekkee damay préféré bu bala may def dara rek déglu ko mu ba noppi rek ndax li muy def. Euh, mi ngi koy teg ci xam-xam mi ngi koy teg ci yar baat bi neex na te du xabaabal te tamit bayit yi nga xam ne dina koy jëfandikoo ci biir sikar si lu muy gëstu lay doon du damm bayit yi mbaa di damm araf yi loolu nekk na loo xam ne dañ neex nañu lool waaw. waaw xam naa ne du doon benn nag amul benn <laughs> amul benn ndax macha allah yëpp neex waaye bu mu ci bu ci bu ci daaj boo ko teewloo rek nga yaakaar ne boobu moo dàq wax dëgg yàlla du lim toog wala wala lim bokk Cheikh Ahmadou Kara tax ma koy wax nag. waaye noonu la demee ndax tey Aya Soda neex na yëpp neex na ñëpp ndax moom moo gën a siw ci ci ñëpp <clears throat> man mii neex na ma waaye bu daajee sindit yàllaahu bil Mustafa nga nga ni boobu eeru laa yi tamit bu ko bu ko daajee ba macha allah bii tamit bu ko daajee cant ngeen nen kasaalika kon eer yëpp boo ci teewlu boo ci gën a teewlu rek da yaakaar ni moo dàq moroomam fekk leer moo demee noonu leer leer la rek waaye eer bu ci waaye dëggal rek teewlu ko moom mu ànd ak fasaxa Ah, ak mahaarijul xuruf gi mi nga xam ne da koy bàyyi xel bu baax a baax ci zikurlaa bi ak ni muy articuler baatu arab bi rek par force air bi dalay dugg ndax lu jóge ci xool ci xool rek lay dem waaw waaw macha allah <clears throat> fa mu jëm moom dañ koy ñaan sunu borom dañ koy ñaan sunu borom waaye bi ma ko teewloo rek damaa xam ne am na lu dooleeku ci moom ndax dañ naan ku yokkul yaa wàññi te boo defee dara war a defaat dara loolu dafa dafa metti boo defee dara mu cartonné nga war a defaat dara mu cartonné waat foofu la problème bi nekk. fi mu def dara mu cartonné yomb na waaye defaat dara mu cartonné waat moo jafe waaw moo jafe léegi ba mu ko dégluwaatee rek seetluwaat naa ci ak gën a dal ak maturité tamit ndax ndax ndax nit ki ni ngay ni ngay ni ngay amee maturité ci sa âge ak sam xel noonu nga waree am maturité ci voix ci gëstu ci zikur laa ci lépp ndax zikur laa dafa sensible waaw. te dañ koy teewlu nag ñun dañoo euh, domaine boobu duma leen ci may dara dama critique ci côté way waaw côté way dama ci critique ndax noonu la ñu sëriñ bi dimbale noonu la ñu yaree te loolu mooy waral ñoom ñuy perfectionné te dama koy man aw sax bu jaarul yoon dama koy bàyyi xel sa voix bu grincé tuuti ma imposé la nga reprendre ko waaye tamit gis na ni mu ko teewloo ak ak espace yi temps bi ak noyyi gi ni muy fàtte yenn tur yi ondulation yi xam nga xabaaba daal te génnul gàm bi benn yoon. bàq bi tamit posé na dal na ñëpp ko mën a déglu dafa nekk waay woo xam ne ñëpp ko mën a déglu kon nag dañ koy ñaanal fu Aya Soodaan yamoon maanaam bii tàmbalee foofu nag jëm kaw yeneen di tàmbalee foofu di jëm kaw ba yéen a jëm am liggéeyal ci Serigne Touba ay xéwal fekk si ko ci ba mu liggéeyal Serigne Touba teral ay waajuram ak képp ku ko ko yéene loolu lañ koy ñaanal waaw di ñaan daal cat sori ko waaye mi ngi ci yoon wi daal amul lu ñu koy dolli ndax euh, tout tànk la mi ngi bi am na ay technique donte technique du doy. am na ay technique vocale te tamit mu ngi gëstu ndax booy way moom nanga nangoo gëstu muy olofal muy arab muy lu mënti doon rek dee ko gëstu ngir tey loo ci wax rek nga xam ko moo tax taw feex rek lañ koy ñaanal macha allah. waaw en tant que seen jëwriñ en tant seen mbokkum taalibe li ma leen wax rek mooy li leen Cheikh Ahmadou Kara di wax saa su nekk ndax man saa su nekk li ma sëriñ bi di digal di leen ko digal ñoom moom laa leen di fàttali bu baax a baax way dafa fiir ci sooboo di ci liggéeyal yàlla ndax boo ne liggéeyal yàlla rek du jar nga naan liggéeyal yonent bi liggéeyal Serigne Touba ñoom ñëpp dañuy dugg ci biir ndax liggéeyal yàlla mooy liggéeyal yonent bi mooy liggéeyal Serigne Touba kon boo am na ci loo xam ne boo ci nekkee di ci liggéeyal yàlla rek da nga ciy jiital fulla ak fayda jiital ci yar ak teggin maanaam am na loo xamante ne bi nii <clears throat> ñun ci voie bi ñu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni orienté buñ ci buñ ci gisee leneen rek ñun ñoo desee tegu ci voie bi waaye lim nu digal dafa leer naññ waaw nanu am yar ak teggin nangoo jàng mbaa di nangoo liggéey fonk suñuy waajur lu nu am jox leen. loolu la nu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni digal boo nekkee nag ci voie Zikurla moom Zikurla ku ne xam na ne dafa fiir am lu mu laaj di gëj a sikar hmm? yu bëri da nga koy moytandiku ndax leer àndut ak lëndëm. leer àndut ak lëndëm yu bëri da nga koy moytandiku te lën te leer fu mu fekk lëndëm da koy gàccaal waaw waaye ñi nga xamante ne bi dañuy Zikurla nañuy gën a sonn ci seen baat. nañu gën a sonn tamit ci gëstu waaw te gëstu moom weesuwul xasida ku tedd ki weesuwul taalif yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bind na ko ci Serigne Touba ndax gën a jege gën a yey waaw taalif yi nga xam ne Cheikh Moussa Ka Cheikh Samba jaar mbay ah ñoom ñëpp bind nañ ko ci sëriñ tuba def ko ci mag ñi kon nag loolu mooy gëstu ndax loolu rek a fi nekk ci ay way waaw man saa su nekk ma wax ko mbokk taalibe yi man leen taalif yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Kara def na ko ci Serigne Touba bu fekkoon Euh, chaque semaine chaque dimanche ñu dugg studio taarif yi du jeex ndax dafa bari macha allah waaw moo tax saa su nekk rek ñoom ñuy bëgg ñuy ñuy ñuy taataan ci yërmande ku tedd ki di gëstu taalifi di améliorer seen voix ngir liggéey bi nga xamante ne bi nii askan bi mi ngi leen ciy xaar ñu mën a jox askan bi lu meilleur lu rafet waaw. waaw di ko di ko di ko ziar bu wér moom tamit pare di ko sant bu wér parce que tamit dara neexul ku nekk bisam la am rek waaw bésam rek nga ko mën a fonkal te tamit lii dafa yombul temps amatul wax dëgg yàlla surtout ku mel ni moom Sëñ Ahmadou Mbacké nga am temps da koy jafe trop wax dëgg yàlla mu bàyyi itam yëpp ndax benn Papa Kara même chaque jour dama koy wax prince mu ñun bu nekkul ci cadre sang ak ak ak ak ak taalibe wala dara moom dafa nekk nit koo xamante ne dafa oyof ñëpp loolu leen ko xamee dafa oyof dafa dafa bu la bu la accueillir doo doo doo rus doo am doo doo doo doo doo doo am dara lu lay metti ci moom wax dëgg yàlla yërmande gi moo bëriwul loolu trop te xam nga ñun rek ak tey nii mbégte gi pour ñu wax dina xaw a jafe daal wax dëgg yàlla waaye en tout cas amuñ amuñu fayam daal wax dëgg yàlla kontaan nañ trop waaw ndax ñun lii rek lii lii rek lañu ñu mënal wax dëgg yàlla te tamit man daal <laughs> tey moom <laughs> ngeen ma ko baal wax dëgg yàlla. mais wëy mën nañ xam Zikary nan la la duggee. waaw ñun comme sang bi nu mu ko waxee léegi léegi mbaake baal na dañu nekkoon ndongo daara ñu yar ñu tette ñu ñu nekk koo xamante ne dañuy am dégg daal dañuy am oreille ñu mës toog ci benn bërëb dégg si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di wasilam moom mhm. di waajuram di waay di wasilam ñu déglu ko muy sikar Barzan albarzan jiw bi nga xamante ne Cheikh Moussa Ka moo ko bind mu ci wax ay maxaarijul xuruf yu leer xam nga boo nekkee boo nekkee nongo daara da ngay am dégg arab mu ci woy loolu daal moo daanaka moom moo ñu dugal ci ci ci tarixa murit moo ñu dugal tamit ci sikurullah si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni personne moom kese moom moo tax ñun ñu doon murit moo tax ñu doon sikkarkat wax wax dëgg yàlla du keneen. Aya Soda bi da ko woy mu mu cartonné neex àdduna bi yëpp laay wax nan la def ci yow. waaw dafa ma gën a gën a ñaaxaat rek gën ma gën ma tiitloo gën ma ragalloo ba ma war a gën a mën a góorlu ndax tamit li sëñ bi wax léegi la def benn yomb na waaye defaat defaat defaat muy gën a tegu ci kaw loolu moo gën a jafe te loolu lu la koy may mooy sëñ bi lu muy wax liggéey liggéey moo liggéey bi mooy liggéeyu zikkarkat mooy gëstu mooy li mu bëggul dafa fiir comme li mu wax sellal gi mooy tamit di sonn sa baat de toro di ci sonn parce que boo gisee mbër mi mu ngi def matin midi soir nga gis keneen ak keneen képp képp képp képp bépp doomu aadama ci métier bi mu nekk mu ngi ciy évoluer di ci def loo xamante ne métier ba moom la laaj zikr tamit dafa nekk loo xam dafa am ay lu ay ay bañ-bañ loolu daal ngay fonk rek waaw. single bi nu mu tudd nga xamante ne moom la ñuy waajal. waaw bii yaa leen la tudd yonente bi lañ ci woy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais tamit dañ ci nekkaale ci actualité mooy mooy ci nattu yi dafa laalaale nattu yi xam nga maanaam olofal bi ba ko Cheikh Moussa Ka di bind dafa fekkoon dafa fekkoon doon waajal daanaka lu mel ni daanaka xare lu mel ni waa lu mel ni xare pour jéem a xeex ak tubaab bi parce que natt yu ñu doon teg sëriñ bi ba pare tubaab bi nax na leen wax leen loo xam ne du dëgg ne leen sëriñ bi daanaka làkku na xam nga ci la ko Cheikh Moussa Ka làkkatoo ci néeg bind ko pour dalal leen ba mu ko génnee ñoom ñëpp bañ ko dégloo dañoo dal xam ne wax dëgg yàlla mbir mbir mbir mu am fii nii amoon na ci jamono yonent bi waaw mu ne mu ne nattoo di kër karaanul awliyaa yi nattu daal moom mooy moom mooy mooy daanaka moo mooy mooy sonal euh, nitu nitu nitu nitu yàlla yi mooy waliw yi ku weddi laajal xayru lan bi yaay ki gën ci ñun mooy Seydina Muhammad waaw màkk bi bu mu nekkoon gën génne nañ ko fa di ko sànni ay doj di ko di ko di ko di ko def def nañ ko lu nekk waaw loolu ñun ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla si la dem Medina fanaan na ci xuntu fanaan ñuy wax natt yi mu daj kon nga xam ne sëgam moom mi gën ñëpp moom la suñu borom teg loolu noonu kon ñun daanaka wax dëgg yàlla waaw waaw ñun war nañ sant daal ak nu mu mënti demee ak moom moom si balaa bii ñu nekk. di laaj foofu laay waxee. waaw ak nu mu mënti demee rek ñun dañu war a sant rawatina ñun waa kër si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni rawatina ñun waa kër maam Thierno Ibra Faty borom daaru ndax moom nga xamante ne si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni daf ñu jàngal ne. bu nit ganaan si àdduna danaan alhamdulilah bu wàccee liggéey tamit danaan alhamdulilah waaw.